dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo réeroo amul ñàkk waxtaan moo am yéenekaay gii di Sud Quotidien mu ñu xam na ñu diwaanu Ndar géej fan yi ñu génn tàngoon na jër diggante nappkat yi ak ñi nga xam ne ñooy takk der yi journal bi nee na Aliou Ndoye mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum napp gi ni ki démb ma ngi woon ci Saint-Louis ngir nag waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom la séqal mbir mi waaye nag indi ay leeral journal bi nee na Aliou Ndoye daan wax dëggam nag ñi nga xam ne ñooy nappkat yi démb dañoo dajee ñoom ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu woowu waaye nag à toll ci ñetti waxtu yoo xam ne daan nañu koy waxtaan waaye nag coow li la nga xam ne moo ko juróon lépp ak pëccaxoo ga mooy lu soxal wàllum licence de pêche yi yéen i gi di ko di jeem mu ñu xamal ñu Aliou Ndoye mi nga xam ne moom lañ dénk napp gi démb nag maa ngi woon ci ndar mel ni ab sapeur pompier yéen i kaay gi mu ñu xamal ñu ñi nga xam ne nag ñooy nappkat yi ñoom nag daat nañuy nangu ne def nañu ay toj-toj def na ñu ay giraawal yi def nañu ay njuumte waaye nag daat nañuy jéggalu bu baax a baax Alioune Badara Cissé médiateur de la République moom tamit démb ma ngi woon ci diwaanu Ndar ngir waxtaan ak i mbokkam ndax fa la fekk baax moom Alioune Badara Cissé di wax ne Guet Ndar foofee fekk baax te nag mu nekk gox boo xamante ni bu mu fonk la bu mu bëgg la daal di ñaawlu bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy nappkat yi ak seenu doxalin Alioune Ndoye nag la mu leen nee na ñi nga xam ne ñoo def giraawaale gi jekk-jekk bal leen que dafay yomb képp koo xamante ni al def nga si nag ay giraawaale ak njuum te danga nag daal di jàkkaarloo ak say responsabilité Alioune Ndoye ne am na loo xam ne du ñu nangu benn yoon rawatina nag ñuy nangooti mu daal di am Alioune Ndoye ne il faut ñu respecté réew Mauritanie ne ndax am réew la comme réew yëpp accord yi nga xamante ni moom la Sénégal signé ak Mauritanie il faut nappkat yi daal di koy respecté journal bi di waa Grand Place Aliou Ndoye sax dafa xam le ne Mauritanie ñoom mujjee nañoo sax daal di nangu annulé li nga xam ne mooy amende de pêche yi Dakar Times mu ñu xamal lan ñu stabilité ndar kay dafa daal di aju ci ñi nga xam ne ñooy waa Mauritanie ndax nag kilifay Mauritanie ñoom xam nañ fi nga xam ne fi lañ jàpp Sénégal waaye li nga xam ne moo am ba des Dakar Times nee na autorité sénégalaise yi ñoom ñoo war a lijjanti mbirum napp gi mu daal di jeex benn yoon seen diggante diggante ak Mauritanie ndax Mauritanie ñoom bu ñu téyee li nga xam ne mooy licence de pêche yi ñu daal tëj seen wax Saint-Louis daal di pëcc xoo Badara Cissé ñu fekk ko ci biir yéen kaay gi moom nag daat nay woo njiitu réew mi di président Macky Sall mu daal xoolaat dogal bi nga xam ne daat na koy jël ci lu soxal étudiants sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ca Chine Alioune Badara Cissé moom nag nee na métti wi yépp ma ngi koy waajuru yooyu xale les échos mu ñu na ñi nga xam ne ñoo nekk ca Chine daal di Ndiaye journaliste bi daal di ŋàññi bu baax Macky Sall daan ne kàddu yi Macky Sall yëkkati loole nag dafay firndeel ne Macky Sall wane na na Sénégal réew mu yaa fus la yéen a kaay gii de la turbine mu xëy nag dikkal ñu ci buuxante bi nga xam ne maanaam moo am diggante au magistrat yi magistrat yi gën a kawe ci réew mi jamono ji nag ñoo ngi buuxante bu métte métti waaye nag buuxante boobe la ko waral kenn ku nekk dafa bëgg jiite li nga xam ne mooy cour suprême ndax cour suprême jamono ji kaka jiite de Mamadou Badio Camara moom nag waroon naa dem retraite ci atum 2017 waaye nag dañ ko yokkaloon lu toll si ñetti at kon jamono ji léegi tey mu daal di dem retraite moo tax ñi nga xam ne nag ay magistrat lañ di buuxante ngir kenn ku nekk nag daal di jiite loolee nga xam ne mooy cour suprême yéenekaay gi daal di xëy nag dikk ci Pape Ibra Kébé mi nga xamante ni maanaam moom moo def rapport bi ci Cheikh Omar an ci ku du moom nag daal dinay wax ndax fan yi ñu génn Mohamed Dionne dafa wax ne ki bind rapport bi ci Cheikh Omar an ab français la Pape Ibra Kébé nee na loole nag maanaam amul benn yoon ndax nag man Pape Ibra Kébé duuma benn yoon ab tubaab man ab sénégalais maa ngi juddoo ci Saloum dëkk Touba jàngee ci lycée Abdoulaye ñas bu Kaolack jóge fa jaar Strasbourg jóge fa jaar Lille jàngee Paris 2014 ma dikk ci Sénégal ngir na xam-xam bi nga xamante ni yàlla baaxee na ma ko ma daal si jariñ samam réew si laa commencé di liggéey ngir sama askana waaye nag rapport bi nga xam ne ñoo ngi koy wax jëm ci kudd ak Cheikh Omar an amul benn par parparloo boo xam ne am na sa wala ak singali lépp dañu koo jaarale ci yoona journal bii de enquête mu ñu xamal ñu Cheikh Anta Diop niki démb la woon ab anniversaire am ba mu dëddoo àdduna fanweeri at ak ñeent ñi nga xam ne nag ñooy intellectuel yi ñi xarañ lool la ñu xamle nee na njàngaleem Cheikh Anta Diop ay mbindam ak i waxam loole ko war a boole li nga xam ne mooy système éducatif bi maanaam di ko jàngal ñi nga xam ne ñooy xale yi professeur Diallo Diop la mu xamle nee na mbind ak xalaatu Cheikh Anta Diop dañu koo daal ragala sax jox ñi nga xamante ni ñooy xale yi ndax bu boobaa nag dafay libérer li nga xam ne mooy esprit yi maanaam da leen di yeewuloo xamloo leen yéen a kaay gi di sunu ñu fekk fa nag rëg-rëg la mu xamle nee na jamono ji Fallou Ndiaye promoteur ma ngi dox digganteem ak Mali Niang bëggut a def benn yoon année blanche